ngay liggéey ak moment bi contexte bi ñu bi ñu bi ñu nekk ku ci mel ne un opposant comme Ousmane Sonko euh, mi ngi ci ay jafe-jafe yoo xamante ne mi ngi koy dund dañ koy tàmbalee ci marche de la liberté caravane de la liberté bi alors moom par rapport à sa sécurité boo koy boo koy xool ban jàngat nga si nga si nga siy def. sécurité yombul am sécurité yombul Sénégal ñaar ñoo fi am sécurité ma xam ko Macky Sall ak Idriss Seck. te Idrissa Seck yow yaay chef de protocole waaw am na am na sécurité macha allah ak Macky Sall ñi ci des nag voilà quoi parce que seeni formation ak yeneen ak yeneen a des mais am na ay jàmbaar yu ko wër parce que am na nu mu nag demee gars yi booy dañ leen daw mais parce que ils endurent ils dure ñu ngi endurer caravane bi man quand Sonko sort ah je suis stressé ci oto bi waaw je suis stressé lu tax parce que xam nga dañu toll ci jamono joo xam ne euh, Sénégal. Mhm. dañ ko teg bët. Mhm. te quelqu'un comme Ousmane Sonko par exemple si est atteint ñu jam ko paaka wala ñu dóor ko bal. je ne probable. waaw ci biir ñi koy wër noonu. oui parce que mais quand le président se déplace mu jóg nii ñu vous voyez les gens autour du véhicule mais il y a, y a d'autres le dispositif est très élargi mm -hmm. pas le temps de faire quelque chose mhm. donc moom bu génnee noonu damay damay damay damay stressé damay ne tiens mais qu'est-ce qui va se passer quelqu'un peut profiter def ko dara dañuy ne Macky Sall la comprendre mm donc su ko waa bip extrait ci otoom dugal ko seen oto yóbbu ko ma tranquille parce que damay xam ne il en sécurité ah bon ah les gens ont commencé loolu moom mooy sécurité moom ah oui mi ngi ci loxo yu wóor suñ ko extraire ci oto dugal ko ci oto boobu mi ngi ci oto bu wóor mi ngi ci loxo yu wóor ba fu mu nekk à destination mais diggante muy génn tout le temps di tàllal loxo yi ni lu ne mën naa am d'ailleurs quand on dit que ne on a attrapé des étrangers par ci par là parce que dañ na yoroon ay armes ay fetal mais ñooñu quelqu'un la l'atteindre après qu'est-ce que qu'est-ce que les dire loolu Sénégal kañ lay fay kon donc c'est des gens peut-être qui qui parlent tout le temps way jël nañ ko ci otoom yóbbu nañ ko amuñu notion de sécurité mais ñi xam ñi am ay notion ci sécurité xam lan mooy sécurité xam nañu toujours que ne quand toujours il est extrait de son véhicule ok pour le mettre à la disposition de dans son dans la dans le véhicule de la BIP wala wala GIGN il est en